xam nga nag Sénégal lii mooy problème maam nit day feebar yow nga doon médecin bi ko war a faj ñu lay iñaane di la soxree te man li faj gii ma ko bëgg a faj nii maanaam xooluma ci dara ku ñàkk jam la nag mën nag duma la ko nëbb ndax sama doom duma ko nëbbal ba léegi nu mel ñu ne nday jara bàyyi ba kenn du ko dégg bu may nelaw moom rek lay xalaat sama xel yëpp ci moom la nekk fan laa jëm di ko bàyyi ginnaaw sonal nga mami sàppi sama xol bi oh yeah yaa ma jundu loolo sonal nga mami sàppi sama xol bi oh oh oh. ma oh, oh. digo du li nga ma wantay sama real love mujj na ci ay lebon lebon bëgg naa la ba la Pero ungaja magico ba no la Oh yeah You want my day Maki mm. Yama indi chilo Manyonga pajama Fina fina la soppee ba léegi naa la Fina Fina déggoo ma sax Fina lan mooy problème bi sama diggante ak yow lan moo tax li may ci yow boobu léegi mënoo acceptel Fina man dama la bëgg dimbalee ma loolu accepté ma. amuñu benn problème bañu ma la accepté dara mais dafa fekk ni sama xol bi dafa am keneen ku ci nekk te sama bët yi feneen lay xool daa am keneen ku muy gis su ma tamit duma ko bëgg ba pare. fi nga daanelee foofu laay ñëwaatee nanguwul jéem a soo ko jéemoon di nga ma gis man Fina jéem ma xool man di nga gis ci man góor gu baax góor gu bëgg góor gu mën téye jigéen góor gu fonk jigéen góor gu am yërmande ci jigéen mais ku diiñ ku am Fina s'il te plaît nangul ma loolu. baal ma rek loolu moom jéggal ma ko rek nga baal ma ci dinañ déggante. Fina Fina. sonal nga mami sàppi sama xol bi oh yeah yaa may dund loolo sonal nga mami sàppi sama xol bi oh oh, oh, oh, oh. nam na la indi loxo bi ñaaf waye e eh, sañ sa nga de saaj di nga fo jëm mer man dama laa mere de waaye loo ma meree Mer yow dama xamni mer yow sa personnalité Mer sa amana mer sa jaagar-jaagar aduna bi yep di waxtane Mer mère naka ngay amé goro mu yëkëti pile de 3 millions jox la ko gar nga jël 3 millions di len ko pour lan loolu mer yow kan mo len 3 millions lan ma jox warga. joxuñ la 3 millions. hmm tay sa information nax na la kon la nga geustu ji won nax na la ñi de 500000 lan ma jox bo beugé dégg téméré junni. 500000. waaw té bama len di délo loolu la len délo kon man ma mal informé. Ah, mais mais mais lu ci mënti am rek yow lu ci mënti am rek 500000 wuro ko na delloo. Eh. non non wuro ko na délo mais mais da nga ko waroon téye. man ma mak 500000 nak di yow it foo ne. Mere, est-ce que est-ce que est-ce que xam nga ni lem ma wax la lo xamanteni aduna bi yepp bo doon wër senegal wër ngal kep mhm. ben info mo fi am taman mako yor dama la koy jox nag gratuitement soxla ma ci dara mer est-ce que xam nga ni waji dafa febar febar bu rëy gis nga waji ji rab bu ngande ngande ngandee ngandee ponkali mami rab moko dug est-ce que xam du fi la ngane lan rabbi fi la mujjé gis nga fi ci Europe waa jëm fa njëkk a jàpp rajo daa jàkkaarloog moom nii face à face ni ko tuy ab bal. innaaru laay wa innaaru jixiraa loolu garaaw de xam nga lu garaaw. Ah. FBI la ñu indi teg. maanaam xam nga mooy police bi gën a mag. maanaam dajale sélectionné mbo mboolem police yu nekk ci àdduna bi. hôpitaux hôpitaux yu nekk ci àdduna nag médecin yi médecin lañu indi teg maanaam ñuy consulter consultation xool ba xam mais mënuñoo xam maanaam waa ji li ko rey lan la kenn mënu koo xam. kon xam nga ne yow sa doom ji bu yeexoon tuuti tuuti lañ koy defu bal te waa ji moo koy rey parce que waa ji mooy rab yow daal am nga jërëjëf am nga ma ndax sama doom ji nga xam ne sama karaw bakkan la ku ko laal ma yëg ko kon ko information bi yëpp yaa ma ko ci jox alhamdulilahi rabbil alamin yàlla nañu yàlla wane la waat ci jàmm ci yeneen information yu jëm ca ñoom waa mais mère dégg sama àq info jox ko dama la koy jox ñëwal kër ga waa mais mbir doo ma jox sa cinquante mille dama ni kër ga ñu defante lu baax yow xam nga ma xam nga ne man loxo ci poos maay ma. non non non mer nag mer sama mer sama àq fan nag mënoon nga ma koo jox rek nag. waaw non mais mer bi mer mais mer bi est-ce que ça va. mer bi moo ñàkk wërsëg dëgg dëgg dëgg moo ñàkk wërsëg mais mer bi ndeyam liggéeyul de te mer wërsëgam moo tuuru ndey kalma. sàppi sama xol bi. oh yeah. yaa ma dund looloo. sonal nga maami. Elage comme sa digganteeg Fina yàqu bu buggatoo ko ah man de sama xel dafa nekkoon ci nga jël aja xale bi teey na yaru na dox nànk wax nànk te bëgg naa ko lool gisal sama contre bancaire boo ko remplir soxlawuma ko boo ma jëndalee oto soxlawuma ko nga jëndal ma kër waxi nopp soxlawu ma ko xam nga lan naa bëgg nga jëlal ma soxna si man loolu laa bëgg waaye yaay doo bàyyi ba si kanam instant bi dafa teel te mbëggeel demewul noonu tamit mënuma xëy xëy rek bëgg ko El Hadj bëgg nga lu ma neex mais bien sûr maman yow bëgg nga ma

yërmande gu ëpp la rek. waa lan nga ma yërëmee man. non c'est que dama mënul comprendre ndax góor mën na jàpp jigéen dund ak moom ba toll ak moom fenn fi nga xëy rek bàyyi ko <laughs> parce que loolu rafetul quoi même bu dara mais rafetul ci ñun gentleman yi. mais loolu du dara ndagul yàlla moom ñëpp a ko war a nangu te lu war a am day am lu warta am du am xëy ne dafa warul am rek loolu kese la mais du dara. vraiment metti na ma de. su ma la ko waxee su ma ko waxut yëpp métti na ma trop mais nag am naa solution oui. ban solution nga si am noonu. mais venger la. si nan nga may venger loo. xanaa jël la jël la dund ak yow lu neex dund ak yow loo xam ne garab bi musu ko dund gis nga yaa ngi nii di ree xam nga yow man xam naa ne yàgg nga maa bëgg mais. dama ko yow pour yow eh lan laay ree yéen góoñ lan moo tax ngeen am melukaan lan moo tax teen jikko nekk benn. yéen daal yàkkamti wala lu dul jigéen am problème am ngeen profité dugg ci biir ku nekk di dugg di génn te du ngeen xàmmee sax ñen ngeen ko war a def yow nuru naa la genre boobu ma jóge ci elaat ñëw ci yow yaa ngi jaawale da ngay jaawale kuy profité ak ku lay dimbali man dama lay dimbali te yàlla rek tax de neel kay sa bopp ngay dimbali nii nga may dimbalee lan nga may dimbalee euh, euh, yow yow Fina xam nga li nga war a comprendre mooy man man dama cher man boo gisee ma ma ma bëgg ñu dund bëgg la dimbali xoolal gis nga fi may wax ak yow nii maa ngi ci relation yoo xamante ni relation yi avorté yu bare bëri xoolal njaxat nduur fii may wax ak yow mu ngi entre hôpital ndax bëggu ma bëgg xoolal Fatima Diallo cent quatre vingt dix neuf mille cent quatre vingt dix neuf mille message envoyé na ma ko ay je t'aime te répondre ma ko xoolal ki nga xamante ne nag moom moom mooy mooy mo Ndey Jóob barki dee moo njaay dafa indi papaam xoolal mook papaam ñu sukk moom rek doolu de mook papaam ñu sukk di ma ramal, ngir rek sama digganteeg moom ma ma ma accordeel ko ma bañ kon xam nga ni yow su ma la ñu dund ñun ñaar xam nga dama lay dimbali rek yalla tax. yow xam nga lan la man ci bopam ma la li nga dara ëpp doole yow société bi nga yéenu rek atanu ko dalaa ëpp doole bis boko ko ko rek ma ñu na deug de man nak il est temps ma jukki sama tour wi no tour wi dafa dis ci man trop waaye lan moo tax man ma société ba pare man société bi mënuñoo daw ñëw ci man pour lan loolu mais xale bi imaginer bu bu bu ma accordé loon rek non faaw ma dindi société bi dafa dis vraiment dafa diis ci man trop faaw ma jël beneen tur booy jël booy bi dundal ko dund booy bi dinaa dundal lu mos gis dinaa ko yóbbu fa sori bi dafa dafa iri te xam nga yooyu day sonal nga mami sàppi sama oh, yaa ma dund loolo sonal nga mami gis nga li ngay xool di nga xool ba fi sa bët te doo xam lan la mbëggeel lu ñuy dund la am na ñoo xam ne dañuy lam-laame mbëggeel naan dañ koy làmb te duñ ko def moytul di bëgg koo xam ne mbëggeel bi nga koy jox moom delloowu la loolu topp ma ma wan la lan mooy mbëggeel dinaa jàpp sa loxo teg ko ci kaw mbëggeel nga làmb daj ko xam ne lii mooy mbëggeel vraiment man li nga may wax dafa mel ni danga may junj quoi te ba léegi mënuma comprendre lan nga ma bëgg a wax waaw dama bëgg a ànd ak yow yóbbu la fu soree sori foo xamante ne nii boo fay dem doo daw doo waaw da ngay temp nànk ba àgg fa boole jóg saa boo xëyee di yàkkamti naan fi ma jëm kañ laa fay yegg vraiment su wax ji mi ngi bëgg intéressé am na ni li daf ma metti jël sama xol di ko foowee ma béy daa takala on saba dund loola sonal nga mami bi sama xol bi oh yeah yaa ma dund loola sonal nga mami bi sama xol bi oh Energy ki never lebon oh.